waaw d'abord euh, dañuy sant yàlla euh, di gërëm ñëpp ñoo xamante ni teew nañ fi pour ñëw symboliquement ci bis bi jëmmal li nga xam ni moom la ñu am yéene à travers l'initiative Sénégal propre mais ànd ci ak coalition Diomaye Président euh, xatoon na mais bon on a tenu à le pour une première fois sensibilisation bi mu war a àndal incha allah dinañ ko ci def pour que ñu amaat yeneen yeneen yeneen yeneen occasion pour mën ko pour mën ko amal donc l' esprit derrière c'est-à-dire dimanche passé dañu fal un nouveau président boo xamante ni symboliquement dafa yoroon bale bale boobu li mu signifié dafa bari au-delà de l'aspect politique qui di que il faut que ñu balee régime bi fi nekk pratique yi fi nekk mais dafa amaat benn appel bu ci am également mooy appel à la citoyenneté mooy lan euh, bu leen ma fal rek bàyyi ma mooy fal leen ma ñu ànd liggéey et nag Sénégal propre euh, ci cadre de vie mais également Sénégal propre dans la bonne gouvernance Sénégal propre dans la gestion des ressources Sénégal propre dans euh, comment dirais-je l'état de droit Sénégal propre dans la démocratie donc lii da ko màndargal à travers nos frères qui ont eu l'initiative vraiment ñu nekk ay jàmbaar bëgg nañ nag mu nekk loo xamante ni c'est toute la Médina qui sera concernée parce que Médina ku ko tudd actuellement tudd problème cadre de vie ku dugg ci koñu Médina yi am nga lu la métti pour nit ñoo xamante ni juddoo nañ yaroo nañ Médina xam ni Médina meloon ci ay tali yu set tali yu baax am lumière am sécurité am dëkkuwaay bu sain ak ay euh, relation bon voisinage ak yooyu mais tout sa sa a disparu à la Médina donc suñu responsabilité la au-delà de au niveau national li ñu fal président de la République kooku suy agir au niveau national mais ñun tamit dañu war a agir au niveau local pour que changement bi muy def moom au niveau national ñun ñu ko koy gérer au niveau local pour mu am impact auprès des des populations et loolu la initiative bi juddu ñu leen di remercier bu baax a baax ñoom initiative Sénégal propre ak ñi nga xam ni ñoom lañ ko àndal te on a di comme ni ñu ko waxee démb xat na man tey mu ngi ma waroon fekk ci benn jotaay mais je tenais à être présent pour wane ni lii ñuy def ñu ñëpp la ñor cadre de vie citoyenneté amul politique amul acteur civil amul amul amul ñeneen ak ñeneen cadre de vie képp ku yeewoo ci gox daf la daf la war et nous leur tendon la mais pour dire que on va continuer cette collaboration à travers d'autres initiatives yoo xamante ni euh, du politique c'est pas l'aspect politique mais nit ku ne euh, boo sañoon fi nga dëkk mu jàkk te politique loo koy def def te mënuloo jariñ sa communauté wala sa dëkkuwaay daanaka <laughs> waxaw amu amul njëriñ parce que politique loolu la gérer cité bi gérer cité bi mooy na nga am impact positif au auprès des populations mais également auprès des de résident de la de la de la cité donc c'était ça l'initiative gërëm ñëpp ñi fi nekk ah tout tout tout tout le bureau tout la coalition Diomaye Président avec les alliés tout ça le parti Pastef ñëpp a ngi fi teew et vraiment on va continuer dans cette dynamique là pour relever défis yi nga xam ni dafa nekk suñu suñu kanam. donc man madame Diop lañ may woowe maay chargée de communication pour Sénégal Pop fii Médina. waaw comme ni ma amee habitude di ko wax rek mooy que ni mouvement citoyen la. te kuy wax mouvement citoyen wax benn cadre d'action boo xam ni ay acte citoyen lañ fay poser acte citoyen nag suñ koy lim duñ fi jógee ak citoyen parce que yu bëri la mais soo xoolee lii ñuy def nii dafa bokk ci li ñuy wax salubrité te suñuy wax salubrité mooy fexe ba riverains yi ñi nga xam ne ñoo fi dëkk ñu mettre leen dans un cadre de vie agréable et propre parce que comme ni ko tubaab di waxee rek un corps sain dans un esprit sain mais dans un environnement sain bon Médina moom du des ginnaaw lépp lu ñu woote loo xam ni day dugg ci bien-être doomu aadama rek waa Médina dañuy taxaw lii c'est pas la première fois parce que waa Médina dañoo engagé xam ne am nañu baat ci réew mi xam ne tey réew mi su fekkee dafa jëm kanam ñëpp am nañ ci wàll muy mag ñi muy xale yi muy mooy mooy mooy jigéen ñi mais comme la population sénégalaise soo xoolee li ci ëpp ndaw la raison pour la laquelle lépp lu ñu woote waa Médina dañuy ñëw taxaw ci seen loxo te tamit comme pour répondre à votre question nguur du mooman lépp parce que dañuy gouverne gouvernement boobu noonu ce sont la participation de somme individuelle nu jajale ko jox ko kenn ki nga xam ne moo ko war a doxal maintenant doxal boobu noonu ku ci nekk da ci war a jiitu parce que léegi dama wax ni mouvement citoyen la mais citoyen moo ko xam ni dafa bokk ci réew am fa ay droit am fa ay devoir xanaa balaa ngay réclamer say droit nag am na ay devoir yoo xam ne moom nga war a mattale donc lii am na lu bëri loo xam ni Médina souvent dañuy taxaw te duñ ci xaar état bi dañ ko ciy jiitu su état bi ñëwee ñu ànd ak moom liggéey ko. voilà donc tey journée de lancement la euh, donc am nañu beneen programme bu ñu établir lu lu lu weesu sax salubrité kese. parce que am na yeneen yeneen action yoo xam ne comme ni ma la ko waxee léegi action citoyenne suñ ngay lim duñ fi jóge am na yeneen action yoo xam ne sax prévoir nañ ko euh, pour ñu doxal ko am nañu calendrier boo xam ne incha allah dès que c'est prêt rek incha allah dinañ ko fisale. bon ah en fait dañuy naan lii du guléet quoi parce que ñun ku ñu xam xam parti bi ñu bokk xam ne dañoo yàgg évoluer sur un don de soi donc du bu fekkee Sénégal sax dafa ñëw fekk si ñu si loolu euh, sollicité ñu pour journée bu mel nii. dañ ciy dem avec fierté euh, te li ko gën a mandarga sax <laughs> mën nañ ne euh, suñu président nouvellement élu euh, le président Bassirou Diomaye Faye taxaw na wane bale donc bale bi bëri signification ndax mën nañ ci jàpp ne dañoo fas yéene bale Sénégal bu fekkee terme bi baax na <laughs> bale Sénégal ba mu set weccee donc lii c'est juste benn fànn la ci maanaam bëgg fexe ba taaral suñu suñ suñu réew taaral suñu réew mais euh, commencé ko ci gox yeeg gox goxaan yeeg communes yeeg yooyu yëpp bu ko defee rek euh, li ñu bëgg ci Sénégal muy liggéey Sénégal euh, yàlla may ñu ci ndam te loolu nag ñu ci xaar sénégalais yëpp ndax comme ni ma ko tàmm di waxee dëgg la yàlla may nañu victoire dimanche passé mais du victoire u parti du victoire u coalition mais victoire Sénégal yëpp la ndax Sénégal ñoo ko xeex su ñu waxee les 2 millions 400 de voix yi yi coalition bi am duñ ne parti kese moo ko moom donc sénégalais yëpp ñoo ci sóob seen loxo bëgg changement bëgg dund rupture bëgg dundu leneen donc loolu dañ ciy jaajëfal sénégalais yëpp te di leen delloo. bon li ñuy xaar ci ci kii bëri na parce que en fait du ñun sax lu ñuy xaar mais sénégalais yi ñoo ñuy xaar li dañ ñoo yóndi yàkkamti ñu donc ñun boo xoolee ba xool amuñu sax temps euh, pour jé jóge nañ ci opposition daal ñu ngi ci pouvoir fi mu nekk nii. liggéey lañ ñu woo te incha allahu rabi que ça soit ministre euh, chargé euh, kii de l' environnement wala chargé de la jeunesse wala de la femme wala lu mu munti doon ñoom xam nañ ñi ñu war a tab xam nañ leen di xaar xam nañ ne bi rëy na te euh, incha allahu rabi dinañ fexe ba lépp lépp matale yàlla nag moo ko mën. mais ci ndimbal suñu borom yi am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax ndax wóolu nañ ñi ñu fal te leer nañu ne am nañu euh, kàttan bi am nañ yëg-yëg bi am nañ patriotisme bi te yéene nañ ko sénégalais yi bon l'engagement de la jeunesse médinoise moom euh, <laughs> dañ ci dañ koy rafetlu la parce que tàmm naa di ko wax ci suñu ay caravane et tout goney Médine xam nañ seen bopp am nañ fulla am nañ fayda bëgg nañ seen bëgg nañ seen commune euh, xam nañ li leen tax a jóg donc boo xoolee rek par rapport ak euh, événement yi fi passé ak euh, élection yi passé da ngay gis ne euh, beneen xar kanam la ñu wane wane nañ ne xam nañ ne seen réew pour mu tabax ko ñoom ñoo war a taxaw ñoom ñoo war a takk seen digg ñiy takk seen tubéy fexe ba Médina bi ñu bëgg ñu ñoŋal ko ci kaw nag seen taxawaay donc ànd ak patriotisme bu bëri mais ak un don de soi da ngay ni ñeewantal sax rawatina na sama mbokk jigéen yi nga xamante ne damay tàmm di ko wax bokk ci nekk jigéen bokk ci parti mel ni Pastef Pastef c'est pas facile parce que y trop de sacrifice mais macha allah danga nga leen naw ndax euh, bu woote jotee rek bàyyi nañ seen yitte yëpp xam na ne seen réew moo woote ñu dem ci ak xol dem ci ak yéene ba yàlla mañ tey lim ñu may ñu di ko sant suñu borom bu baax te di leen jox rendez-vous aussi tamit euh, au soir du vingt euh, le vingt neuf février le deux mille vingt neuf incha allahu rabbi bu ñu jeexalee suñu mandat ba résultat yi yëpp kii ngeen bañ ñooy yàkkamti rek euh, bañ a gaawtu te xam ne incha allah rabi Sénégal dinañ ko liggéey incha allah. pour nettoyer waat comme ni ko euh, président Diomaye fay Diomaye Diakhar fay di waxee yor bale bi di bale donc bale système c'est euh, waxin la mais aussi mooy bale dëkk bi setal dëkk bi taaral dëkk bi génnee environnement dëkk bi saxalaat garab yi peinturaat koñ yi defaraat koñ yi ba mu gën a ba mu gën a yaatu parce que koñ yi boo Euh, vue nii boo xoolee ci kaw nii da ngay foog ne koñ ñi dafa xat alors que dajaloo gi la quoi moo tax donc bu ñu balee rek ba mu set peinturaat garab yi peinturaat euh, koñ yi euh, dindiwaat suuf yi rek koñ yi dina yaatu te instant bi si loolu lañ nekk moo tax ñu tuddee ko Sénégal propre waaw. par rapport engagement bi bi aussi c'est bon engagement citoyen la boo xam ne bépp sénégalais boo xamante ne ak bépp ak bépp doomi aadama boo xamante ne yaa ngi juddoo ci gox. di màggee ci gox surtout goxu Médina bii ñuy wax ku ne xam nga ne Médina euh, bindoo na bind goo xamante ne buñ si jëlu suñu matuwaay mën na gën a salte comme ni mu mel nii parce que déjà boo xoolee rigole yi rek ni mu mel salte bi ñu dajaloo fii marché bi am fii mbalit meeg carton yeeg euh, euh, butéel yeeg yëpp ci rigole yi la jëm donc il faut déjà présent ñu jël suñu matuwaay pour citoyen bu ne nga xam ne ne sa devoir ak sa responsabilité mooy nga setal sa gox setal sa quartier mais aussi setal sa biir kër parce que boo xoolee même l'islam sax da la koy wax xubul watan minal imaan xam nga set si jaamu yàlla la bokk comme set nag si jaamu yàlla la bokk euh, bëgg bëgg sa réew nag war na tax foo gisee lu set wala foo gisee foo gisee lu tilim nga war ko setal loolu moo tax tey ñu ñu def initiative bi tuddee ko Sénégal propre. waaw bon ministre de l' environnement bi déjà moom jiitu nañ ko ci liggéey bi donc moom bu ñëwee aussi na xam ne ne Médina taxaw nañ déjà pour Médina propre pour Médina gën a set. donc moom tam bu ñëwee na xool tout ce qui est matériel ak tout ce qui est aspect yoo xamante ne mën na dimbali ñit ñi pour que Médina gën a set na ko def parce que xam ne la ñun déjà ñu ngi ci terrain bi beneen aspect bi aussi mooy bépp ministère bu ñëw aussi même bu dul même bu dul euh, euh, ministère de l'environnement rek mais aussi beneen ministère bu ñëw war nga xam ne ne Médina am nañu am nañu am nañu entente boo xamante ne ñu ngi koy xaar fii loo xamante ne si lu jëm si propreté si lu jëm si santé si lu jëm si éducation si lu jëm si le sport ak leneen ak leneen loo xamante ne bépp ministère bu ñëw rek ñu ngi lay xaar ci loolu